sadid lisani nawil janani safi amani wazid barayi barke borom touba barke borom touba barke mam cheikh ibrahim fallamp mbokki talibi mbokki julidi yi yéen ñi baaxoo di ànd ak ñun ci site bi site internet bi jat TV ñi ngi leen nuy yeen ñep te di leen ziare bu baax dem balu àq dem balu àq di ñaan su borom bolon jéggal di ñaan sëñ muntaha bashir mu yag fi lool te wer di ko ñaan seen cheikh Jëmbu di sante yalla baax moom may katan ban teewaat jotay melni mu mel ni yéen ñii ànd ak ñun ci internet bi ci DAT TV mu mel ni waxtaan noonu bii passé maam Cheikh akum njàngaleem waaye maam Cheikh Ibrahima Fall akum ndogu ba léegi ci nekk dañuy waxtaan maam Cheikh Ibrahima Fall am njàngaleem maam Cheikh Fall lañ la jàngale tey dama koy wax lu bari nee na maam Cheikh Fall mooy yoonu murit su ne yoonu murit rek mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ku ne xam na ni naa yoon wi moom li Cheikh Fall waxoon rek sëñ Bamba bu dee aw aw yoona fu mu jëm. man serafal may dekk may dekk ma yoon wa sëñ Bamba moy moy dekk ba waye man serafal ma yoon fa jëm tal nanyai ñay egg naa rek ku jaar ci man di nga yegg waye ku jaar ci man do yegg nga xam mom serafal la ne sëñ tuba bu doon ab ten la ku du man serafal fal, xamoon rabbi tammi tuddu da daan ne yoonu sëñ Bamba bi bu doon am ngoro la su ngoro tassé man lay jox ci ni nga xam kon lepp de serafal Fall da ne bu ab tol la may dig wi dom ku dox ba egg ci man yaa ngi ci bi waye dom ku sagam rom ma génn nga tol bi ko ko mam serafal Fall waaye ñu xool am njàngale moom maam Serigne Fall nga xam te ne dafa nekkoon ku kéemaane moom maam Serigne Fall dañ ko war di exposé di ko jox di ko dugal ci ci école bi école yi ñuy jàngale yëpp ci réew mi ndax maam Serigne Fall daa jàngale jàngale moo xamante ne bii nan la ñuy étawee nu ñu yoree état maam Serigne Fall jàngale na ko nga xam ne nu ñu yoree état mooy lan xoolal nee na la doom da nga yor jikkoy tan ah gone da yor jikkoy tan jikkoy tan mooy lan tan yàkkamtiwul dara tan léppam ci suñu borom la ko teg résumé da laay lay dox lépp ci ci tan tan moom fii yàlla rayul médd moom tan du jëfandiku nga xam moom ci mbedd rek lay dundee moom tan waaye xoolal sëñ li ñu ci maam Cheikh Fall jàngal mooy kon tan yàkkamtiwul dara kon doomu aadama bi warut a yàkkami dara da ngay gis gone goo xam ne bi amagul ñeent fukki at di ay milliards xoolal maam Cheikh Fall gone gi yorol jikkoy tan mooy bul yàkkamti dara sa lépp teg ko ci suñu borom résoulement yi da laay wërsëg yëpp wékk ko suñu borom nga loolu jàngal yi waaye xool tan bu gisee nag buy waaj a dee fekk nag bi diwul du ko laal day bàyyi ba nag bi dee mu dem wëri ay mbokkam daane nag ku nekk fa seen mbokk nak xam nga ko bu dee ay mbokk mbokk yi ñëw nag mu leen ay nit day am mu naan kilifa maanaam loo gis ci àdduna mu dem rek am kilifa bu ko defee ci biir tànn am na boo xamante ne mooy kilifa ga dañ koy bàyyi mu noppi ñoom ñu doog am sañ-sañ ñu moom mi ko gisoon di wax maa ko jëfandiku ngeen doog jëfandiku waaye daal kaay ko bokk mooy ab day bokk ab jullit day am kilifa waaye ab jullit du yàkkamti Sëriñ Tuubaa wax ne ñaar ñi dama ci ànd ak kenn ku yàkkamti ak ku ñaaw njort moo tax ma am seen fan ni kon booy yow gone gi yoral jikkoy tan beneen mu ne soo ñaan wërsëg na nga ñaan wërsëg sa sawum gileem quoi faal luy sawam gileem luy warsagu sawam gileem mu ne warsagu gileem mooy gileem bu tàmbalee saw danaan yërërër ba ñëpp yaakaar ne gileem gi moom dootu arrêté ba ñëpp ne gileem gi moom xanaa dootu sawati mu tàmbaliwaat nee na warsag boobu moo nga ñaan warsag gu ñëwandoo rek ndax sëñ Fallou Mbacke nee na moom moom tepp tepp moo gën yu réet nee na bu lay réet daan këpp mu jeex kon Serigne Fallou loolu wax ne taalibe bi nañ ñaan warsagu sowam gileem mooy warsag yu ñëwandoo ndànk ndànk ba ñu ñëwandoo lépp lépp maam Serigne Fall nekkoon ku kéemaane daan jàngal nit ñi jàngal yu kéemaane dafa am benn maire boo xam ne ndeysaan doomam daa toppoon waa kër maam Serigne Fall mu métti ko lool mu koy jooy jooy yi métti moom maire bi benn benn nijaay gone gi nag muy rakk maire bi daane ko sa sama jarbaat dégg naa mi ngi kër maam Serigne Fall waaye naa ko seeti ndax ñooñu moom julli wuñu wóoruñu te bu fa nekkee day yàqu dong daal di kër gi rek tamit maam Serigne Fall di génn ci njàngale maam Serigne Fall rek maam Serigne Fall ah, looy dox mu ne ko diw fi la nekk mu ne ko waaw mi ngi ci boo ko déggul rek da nga yaakaar bokkaale da ne ah waaw mi yàlla waaye doom yàlla ni ko serafal doon jàngalee mooy waxul doom yi ndax serafal moo la gën a xam ni yàlla lam yokkun loo ku fa ku yàlla juru kenn kent kenn juru ko lam yerit wala mu yulat wala mu yokkun loo ku fa axat maam serafal moo la a xam waaye li mu jàngale mooy képp ku liggéey yàlla rek daana doomu yàlla moom ñi xidmaal yàlla lay waxal ndax kuy nekk ci kër maam serafal rek yàlla ngay liggéeyal moo tax ko ah, doom mi ngi ci doomu yàlla yi waa ji nag daal di ga profité ma gaaw jaar jaar ci kawam ndax kii dof gi ñu koy jën dëgg la dëgg ma doomu yàlla yi kon kii jàngut xaar moon ko ne ko man damaa daa nekk waaw moom de ñëw na ci yow mi ngi ci yow waaye yaayam da mi ngi jooy rek ta maa jàng ci xadis bu wér Seydina Xamed wax ni ajjanatu ajjana tax daax daamul um xaati mi ngi suuf ndëggu yaay man damaa jàng ci xadis Seydina Xamed wax ni ajjana mi ngi suuf yaay te kii yaayam mi ngi jooy rek kon ajjana mun faa dem ndax ginnaaw ajjana suuf nekk kon mu mun tabbi ajjana maam Serap ne ko eh, eh doom xadis ko jàng nga ko ko dina ko jàng nga ko waaye déggoo ko dégg ñu bari naan Serap Fall jàngul doom jàng xadis bi de waaye déggoo bi de Seydina Xamed wax ne àjjana mi suuf ndëggu yaay waaye ban nday la wax ndax nday ji def sawara ndax àjjana la ne suuf ndëggoo waaj na ko déedéet mu ne ko jigéen ñi nga xam day taxawaalu li yàlla santaan def ci dara yàlla digle maanaam defu ko li yàlla tere ko kooku moom àjjana day nekk suuf ndëggoom mu ne ko déedéet mu ne ko soo déggee yenn la wax ni àjjana to àjjana tax tax daa mun am xaat min suuf ndëggu yaay nday ju mel ne man Cheikh Rafal lay wax ak ku mel ne Serigne mooy ñoo xam ne mooy Cheikh Mourabbi mooy ñi nga xam ne fekkoonte ne bi yàlla da ko da ba jippi ko ba génn ci moom nga xam te ne am nañu yàlla wax ne yàlla ni ar ci Alxuraan nga xam ne yàlla dañ leen mëngale aw nag ngir ngir seen jëf ju bon daan na ñooñu dañ maa jubaa ci diine ñu ëmb leen ci diine imbi leen ci diine fal leen ñuy fal di foole te kenn du ko dindi kon nday ju mel ne man Cheikh Fall lay wax ak ak kon mel ne xadis yi dañ koy jàng waaye di ko Cheikh Fall dégg sax nañu dégg nga noonu mu ne a doom Alxuraan ba Alxuraan daj Serigne na lu ko tax a wàcc waaye Alxuraan ba Alxuraan daj man Cheikh Fall jëf naa lu ko tax a wàcc kon ndekete Alxuraan ni ko Serigne Touba toppee di ko taggee rasulullah di ko génne di ko di génne yuq yi di ko leeral maam Cheikh Fall loolu la ko jëfee ci jëmmam ba ku gis Cheikh Fall jëfam rek xam ne mooy alquran Cheikh Fall mosu def lenn lu méngóol ak alquran moo tax bi ko naar bi way da ko way wayu kéemaane dana Cheikh Ibrahima Fall huwa huwa baabul muridina Cheikh Ibrahima Fall huwa baabul muridina Ibrahima Fall kanzul maqaam nee na Cheikh Fall maqaama yëpp fan fan denc maqaama ya mooy maam Cheikh Ibrahima Fall kanzul mooy trésor maqaama yi moo maam Cheikh Ibrahima Fall dunya wa ukhra la wax aduna ak alakhira mam Serigne Fall moy maqam yi gëna kawé maam Serigne Fall da ko wa barzaqul nak kon bo la ñett yépp digënté aduna ak alakhira ak barzaq maqam yi fi kawé yépp fay denc maqam yi moy moy moy lan moy mam Cheikh Ibrahima Fall lo taxon mam Serigne Fall musu ko waxon ben doom ju jigen doom jigen dañu tim ko rek diko xol yërem ko lol ngir mam Serigne Fall dam dënd bu lan ko daal dënd bu metti dana ko daal su ko dënd mu san daal day wosé mo taala Fall nako dama nga señ wa dënd da ñew dama ñaanal am na benn bis daa yónni man sëñ Mor Talla Fall ko demal nga ne sëñ Touba dënd bi daa ñëwaat na ma ñaanal sëñ dem bi mu àggee sëñ Touba wax ko ko sëñ Touba ne ko bu àggee neex waaye naa ko bi sëñ Mor Talla Fall di ñëw fekk maam Serap ko egg Serap Fall indiwul dara de sëñ bi jox ko dara mu ne ah sëñ bi ma nee na ko waa demal gis naa ko li ma sëñ Touba fajee ko def naka la mu xool ma rek ma maam Serap Fall léegi doom jigéen na toog a maam Serap Fall am ñu ne na ko ñun de man de Fall dama lool sa dënd bi ni muy méttee dama laa yërëm loolu maa ngi ñaan yàlla mu teggil la ko mu ne ko ah doom te nga bay ñaan yàlla mu teggil ma ko dënd bi du wér mukk dënd bi du wér mukk ndax dënd boo xam te ne bi ci la yàlla def maanaam da ci def da ci dindi jëf jëf ju yàlla gërëm ci la ko yàlla denc kooku bu ko yàlla waree fay ci la koy génnee fay ko kon dënd bu ñuy def ko dindi dënd boobu mënut a wér moom loolu ko maam Sëriñ Fall wax moo tax man la kanzul maqaamaati dunya wa uxra wa barzaq mooy maam Sëriñ Fall nga xam te ne moom mooy trésor fa ñu denc mooy trésor bi ñu denc maqaama ya adduna ak alaxira ak barzaq moom maam Sëriñ Fall waaye yëngu ci de mu ne Samsu Samsu kullu makaan fi islam maam Serigne Fall barab barab mooy jant barab bu ñuy màggal ci islam mooy maam Serigne Fall mooy nekk jant ba. yawmal qiyaamu Ibrahima faal imam Muridina loolu la wax nee na yawmal qiyaam ba gën jëm kay jiite murid yëpp mooy maam Serigne Fall muridullahi yi jëm jëm àjjana yëpp keneen jiite mooy maam Serigne Fall. waaye yëngu ci de yàlla yëpp seen imaam seen keneen jiite mooy maam Serigne Fall mu ne ila makaani waaxidin Ibrahima Fall baabul xolom wa baxru xikam maam Sëriñ Fall mooy buntu xam-xam xam-xam yëpp booy sàkku maam Sëriñ Fall mooy buntu ba waaye mooy baxru xikam mooy géeju xarañ maam Sëriñ Fall daan jàngal ma ngi jàngal yu kéemaane am na benn bis ma ngi jàpp di jàpp sëñ Tuubaa ne yéen mënu leen jàpp de def leen seen bàyyi Sëriñ Fall jàngale am jàpp ma si mag am ñu wax ne waa ku lu jul di woon nu mu jàngalee am jàpp waaye nañ dem rek waxi sëñ Tuubaa dañ ko jëfe ñoom ñëpp ñu dem dem Màkka Loloy Màkka Loloy boo ko déggee nag ci biir njaareem la kër gu mag mooy Madina Madina la war a Makka loolee mooy maam Serigne Fall dëkkoon kër Cheikh bi mag ñi waaxoo digg njooloor digg bëccëg ñoo fekk maam Serigne Fall toog eh, am eh, da a na bun man waaw mu ne def leen ma gaa yi njëkkër lay comme ni ñuy jàppee jàpp mu wér loxo gémmiñ jàpp mu wér comme ni ñuy jàppee ñun ñëpp maam Serigne Fall ne ehe doom sëñ Bamba dem leen Serigne Fall jàngalee am jàpp daane ah doom kuy raxas cin li togg cin raxas ginnaaw cin la bàyyi biir ci nga quoi Fall xamuñu la ko boo de mu ne suñu joxee ngeen jàppal seen xol ba noppi doog a jàppal tër yi yow ma laa yan faxu maalun wala banun illaa maa tallaa bi qalbin salimin xol mooy sell ba noppi tër doog a sell yéen da ngeen rek waaye xol yi kon xol ngeen jàppal ba noppi doog a loolu maam Serigne Fall jàngal ma ñu keroog mosaa génn ci mag ñi laaj leen ah, sangu set lu ci risaala wax gaa yi wax ku nekk wax la nga xam mu laab dem ci wanag ko mu ne ah, ah, ba ki ki ko amul nag nu ko defee baaxul dara koo sàcc bàkkaar baa tax serfa gis nga fi wax bàkkaar baa tax mooy nu ko defee baaxul kon nga gis yooyu jàngale daal Moussa wax Yaram Mbaye ne ko ah Yaram Mbaye day dul ay Yaram rek waaye su nga nekkoon Yaram man serfa lu war dañ koy bind su nga ne mujj jamono saa wax dina am njëriñ loolu man maam Serigne Fall daal bu nga ne mujj jamono ñañu jamono day jël ay wax def ko muy seen i jëf waaye yéen ñi ma yaakaar jël leen jëf def ko muy wax ndax yàlla dafay fay wax mukk bàyyi jëf te Sénégal moom ku ne xam ne léegi réew moom réew mu wax la Serigne Fall waxoon na ko bu nga ne mujj jamono ñañu jamono day jël ay wax def ko muy seen jëf waaye yéen taalibe yi ma yaakaar na ngeen jël jëf mu gën a wax ndax ki jëf ba raw la mun a wax ba dab ko daan ne bu bu ngeen eggee jot jamono yi day mel ni ay waañ maanaam jàkka day wéet xool leen yi bu dul àjjuma jamono ji même bu bu corona ko woon dara amu woon jàkka yi moom day wéet lool ndax bu dul àjjuma ay benn sàppe ñaari sàppe nga xam nit ñi di fartal julli àjjuma julli julli jàkka maanaam seen fan la bu nee mujj jamono jàkka yi day mel ni ay waañ waaye daayira yi mel ni ay mbootaay kon bo dem fukki daayira fay nek ak djuroom nak, du dox nak mam Cheikh Fall ben du ci dox ñu ko ah, fa lu ko waral mu ngi yëkkatoo djitu ma djitu ak do djitu kun tecc gi ginnaaw nga mer kun djoxul poste nga bokk yaakaar daayira ba nga xam la koy lu nek ci lay ngir ñak la jox poste neen lo daayira ya nee na fu nek nak baatu ilahi la difa dafa ku nek na mën du tudd yow Cheikh fu nek baatu ilahi la difa dafa ku nek na mën du yow ne adam su ak egg jamono da jala mbolo na taxaw fu la jeme bàyyi leen ba xam fa nga jëm gën ci yow da ne yoon suñ bamba bi ñaara ko su jamono ñoko ñaara mu ne mbap me ko mbap ko faal luy mbab mi mu mbab mi ne mooy ku bàyyam ku xamante ne bàyyam suñu tubaab ko koo gërëm mu ami taalibe taalibe yi topp ay bàyyam di ko liggéeyal bàyyam génn àdduna moom kenn yëru ko kenn jàngalu ko sariya ña toppoon bàyyam dagg topp ko moom xam fu mu leen jëmee xam fu mu jëm ndax jàngu sariya tar bi yëwul looloo bari ci yoon wi Cheikh Fall nga egg jamono loolu ko yàq te yaakaar naa loolu mu ku xool jamono ji xam ne loolu ko yàq waxoon na ah, ah, doom su ngeen ne mujj jamono na mu ne na ngeen moytoo raamal ko bàyyiwuloo xaraam na ngeen moytoo raamal ko bàyyiwuloo xaraam gars yi xamuñu foo dëkk xamuñu noo mel moom daal santal Fall baa ngi sant Mbàkke rek gaa yi raam ne na ngeen moytoo raamal ku bàyyi lu raam na ngeen moytoo jébbalu ci kun jéggalut naka nag kon kun jéggalut nangu wuta lekk de serafal ne na na ngeen moytoo jébbalu ci kun jéggalut kon nag kun jéggalu wuta lekk njébal na ngeen moytoo sonnal ku ku noppaloogut na ngeen moytoo sonna sonnal ku noppaloogut na ngeen moytoo sukkal ku sukkandikuwul ci yàlla waaye na ngeen moytoo topp ko bari pexe te jugut juróom yi da serafal waxoon kon juróom yi muy juróom yi kéemaane man serafal ne ah yaaram mbay jamono jooju la ca tax a mucc jamono bu ngeen egg ba jamono yëngatu mooy ñi ñu toll jamono ji ba jamono jaxasoo na ngeen ko xaar ci tekk ndax jamono lu mu yëngu-yëngu ci tekk rek lay mujj kon jamono lu mu yëngu-yëngu na ko xaar ci tekk waaye bu ngeen egg jot jamono na ngeen di gàttu tànk di gàttu làmmiñ te ngeen dugg tu ngeen xam te ngeen wax lu ngeen man ndax du ngeen egg la ca tax mucc mooy gàttu tànk gàttu làmmiñ tey déglu ndigal ka fa nekk sëñ Tuubaa na ngeen topp ndigalam ndax moom maam ne eh doom yéen a ngi dem jamono joo xamante ne bii mucc da Chérif neew néewu ca ndaw jamono gumba gumbaake gana gana gi da amna na xolé waye mu xoolee waaye amul loxo yu gumba gi di mom amna loxim jappé waye mu jàppee waaye amul gët yu mu xoolee daanaka suñu egg jot jamono nak ginaar gi dem ci digg manding bi mu nen fa tosan fa dana ginaar googu suñ duggé dinaaw tut tut bu wad bu ki far la seex daanaka aadama neen lu bax la ca taxamu ci moy dégg ndigal ta nango jëfé koo téré nango jaamu yalla ragal ko nango dégg ndigal ta nango jëf na ngeen nango jaamu yalla na ngeen ragal yalla doom na ngeen nango liggéey Chérif liggéey fi bàyyi moo tax gars yi léeg ñu gis koo xamante ne bi ndeysaan bokkul sax ci yoon wi xamul sax ni yoon wi doxee ndax yoonu Baye Fall moom léegi daa xumb ku nekk dugg na mosoo ko yaaram bay ne ko ah sama gi yéen a ko tëggee nu mu la neexee rek waaye moo koy tëgg li tax ko woon jóg keroog moo jógee Mbàkke tey ba Dakar ku fa njëkk gën ku fa njëkk gën ko waaw foofu ñu naan ku fa njëkk gën xanaa kenn dafa njëkkut mu ma ah kay faal waaye lay tax a gën la njëkkewut nekk lay tax a gën mooy liggéey Sëñ Bàmba nga xam maam Sëriñ Fall wax ne xam li yàlla bind lépp amu solo xam li yàlla bëgg moo am nga faa lu yàlla bëgg mooy liggéey Sëñ Bamba dong la yàlla bëgg xam li yàlla bind lépp amul solo li xam li yàlla bëgg moo ëpp solo ñu ko faa lu yàlla bëgg mooy liggéey Sëñ Bamba dong la yàlla bëgg kon nga xam Cheikh Fall dañoo ne liggéey Sëñ Tuubaa bi nag daañu soñ dongo yi liggéey Sëñ Tuubaa bii ku ci yónni sa doom bu ñëwee di sa baay ku ci yónni sa jabar bu ñëwee di sa jëkkër ku ci yónni sa jaam bu ñëwee di sa di sa buur daane Sëñ Bamba bëri ko ci mbatal la su ngeen ci tegee loxo mu dem su ngeen tegul tegul loxo mu dem ah doom te ngeen ci teg loxo mu dem ñu yaakaar yéen a koy doxal ngeen des sag ba xoolal maam Cheikh Fall nga xam jàngale yu gàtt lay jàngal mag ñi mu sax génn ci mag ñi di laaj nga xam te ne ni muy ni muy maam Cheikh Fall ay laajam dafa dafa kéemaane nga xam day cax mag ñi cax yu ndaw waaye jàngale ci àdduna nag moom maam Cheikh Fall daanaka wax yar de ku ko am mën naa sant noonu ndax dañoo dañoo laajte naan diw Fall la sant sant Fall mu ne leen bu yaroo rek sant Fall bu yaroo rek sant Fall kon ndekete ku yaru mën naa mën na laa boole fu ne waaye Cheikh Fall dafa am ñaari Baye Fall yu doon xuloo kenn ki day bale su balee ba noppi kenn ki ñëw yaay deg ñom ñaar ñu xulu ci nak ba ba xaw jaa dem gendarmerie bi ñu agge ci mam Serigne Fall mam Serigne Fall dina atté ne ko lu xew mu ne ko dal ba Fall may bale waye lu def sama balé rek kii taxalaat Serigne Fall ne yow ka nga wara fay ki takal ginnaaw yow bale ci nga yegi ci yalla bale ci nga amee li nga bëgg ki taxal kay moy sa way kuy bale ku nekk kuy taxal moy wayam ndax ku gisu kuy taxal do balé la ko na nga fay ki di taxal ta ñun Sénégal contre def ñun kuy bale kuy takal ngay baña gis gis ta ki bale ki takal moy wayam ndax ku gisu kuy do do do do bale mam Serigne Fall lolu jangal mag ni nga xam jàngal leen bëgg sëñ Tuubaa mooy tax a mucc sëñ Tuubaa daana wax naan bëgg leen Ibra Faal ngir li ma bëgg baa ngeen bëgg Ibra Faal ngir li ma ko bëgg baa ngeen bëgg Ibra Faal ngir bëgg maa bëgg nekk bëgg Cheikh Fall tax bëgg sëñ Tuubaa yombul nag bëgg Cheikh Fall ndax daana wax naan ah doom ba mu ba mu jébbalu moom am Cheikh Fall la tàmbale waay waayam wax lam bi yàlla ajumal dëgg gaaw mu xumb lool di biir lam ci tas daane ah doom da nga laaj ku daan ñu ko faal ku daan mu ne wax ku daan sax du ay teggin waaye ba lam jeexee yàlla woon ma gërëm ñetti yoon rasulaay woo ma gërëm ñetti yoon sëñ Bamba woo ma gërëm ñetti yoon ca laa rawee xel ca laa rawee xalaat daane ah doom kuy xool du ma seen kuy xalaat du ma daj da gina xel di xel xel nga lool do romana man serafal nga xam loolu serafal da ko jàngale ci yu gatt yoy nga xam mom la jàngale moy moy lan sëñ bamba rek fi nek lool serafal da ko nyep. ñëpp ndax ku nek ku ñu wax sëñ jéeri waral sugu sëñ jéeri waral mos ñu fek sëñ jottok mu ne ko de man man de mën naa lu kéemaane loo xam mënoo ko jottok lo mën ta mënuma ko mu ne ko laal si sëñ jottok sëñ jéeri defal ñu gis sëñ jéeri jug daal si ci fall fa ay borom fa way serafal la wo kin jappé daf bi ci yoon bi serafal ñu ko ah mën mu ne ko laal asamaan si mu ne ko boo laal Cheikh Fall ne ko boo laalee asamaan si ma laal borom asamaan sëñ Jiri waa suuf daal daal ñoo ket laal asamaan si maam Cheikh Fall laal sëñ Bamba ne ko laal naa borom asamaan sëñ Jiri daal ñoo ket sëñ sëñ Joor ñoo ket dugg ci biir génn am mburu ne ko Mouhamadou Soulaye moo la ko bëggee yow maam Cheikh Fall mu ne ko jokk ay gaay mu fi nekk ay mbokkam te yow Mbàkke ba amee la ma jox nga jox ma ko Cheikh Fall foofu la royee ñëpp mooy kenn la sëñ Tuubaa ku ñuy wax sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mor Seck sëñ Mor Seck di daal daa nekkoon ku kii maa ne waaye xaritu maam Cheikh Fall la woon waaye dafa nekkoon ku doy waar bëggoon maam Sëriñ Fall lool moom sëñ Modou Paxa sëñ Modou Paxa mooy sultaanu xaarifiina nga xam te ne moom daa eggoon ca tàkk ci yàlla daan dem àjjana ka ñëw loolu moom kéemaan la baatin la ci mujj jamono sëñ Tuubaa daan ko yónni àjjana mu dem ak ñëw am na benn bis daa dem àjjana ñëw na Mbàkke man damay am lu ma jaaxal xanaa maam Sëriñ Fall moom moom àjjana mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko damaa gis àjjana kër gu fa rafet ndax kër àjjana yi bokk na kër àdduna yi kër gi day bil di day rafet lool mayaan yi xanaa am ab yent moo ko moom ñu bin ci kaw Lamp Fall xanaa Sëriñ Fall moom fépp mu ne ko ah moom ko de waaye bare na fa waaye mayu ma ko nag moo ko jëf sama jono kon yomal qiyam bu nit ak jinne ak malaika teewé ci kanam sun borom lima leen lima jam yalla lima liggéey sun jowa soxlo ma dara mo kon lo bëgg mo ne ko bu nit ak jinne ak malaika teewé ci kanam yalla benn bar rek la soxlo moy cheikh rafal taxaw ci kanam mbolom yépp na ma jappa sama xarit la doon ma sëkk ma cheikh rafal ñak reeru borom lu way liggéey yak mom kon yoonu bay faal yoonu liggéey la du yoonu ma jall du yoonu taxawalo du so cheikh rafal mo gënon civilisé ñëpp yi gaay xewal ci bay faal rek bokku ci cheikh da nekkon da won da sol manto ni manam di baxoñ mel baxoñ baxoñ noir blanc daa sol perkaal teg ci mante bu ñuul moom am Serigne Fall teg ci curki dara bi yor kaang bi sol daal body moom am Serigne bu sëggee aras mu siggi kurus mu ne ay nga jekki njañ neexi ree moom am di xeeñ gëtt gu neex miski laa na xeeñ si lui sa lool xamoon nekkoon actualité ah, ah, maanaam Serigne Fall daa gënoon xam ñëpp adduna gën a dund ñëpp adduna waaye gën a xam ñëpp Serigne Touba mos na indi benn Baye Fall ci arbel njaarim di armée di nga fonk tom fonk ngeen seen kër aduna yi baye kër gi mu rap xana xam leen fi ngi ni muju nga xam moo gën a ragal yàlla ñëpp te mo réew mi de kuy waxtan ko ragal yalla do ci boole maam Serapha Fall ta kuy ragal yalla cheikh Fall ngay waye waaye la li ma waxoon Baye Fall yi ah liggey da liggéey am benn Baye Fall boo xam ne ndeysaan daa xëy majjaal yi dugg dëkk bi ma jall ma jall am lu bari indi ko maam Serapha Fall da ko becc ci kër mam Serapha Fall mam cheikh Fall ko adom ah, ah li nga indi bari na dafa jële di mu ne ko ah addi rek ay dama ko jox de mu ne ko waa ana sa bas yow wa da tek mu ne ko waa ah, bu ñu fayee ñi yow lu lay fay dama ne la ñàkk durir borom lu way liggey yak mom Serap Fall ne ko ñàkk a duree borom lu waaye liggéey yaa ko moom yoon bi liggéey la daanaka xam ngeen waamee ñu ne waa waamee mooy ndox mu bari muy muy taw di wal mu ne bu romb bu jógee ci tund wa di ñëw lu mu romb da ko yóbbaale waame bu romb bu jógee ci tund wa dem ci xur wa lu mu romb këyit ak bant ak lépp da ko yóbbaale waaye su àggee ci xur wa ba ba ba war a ñiis nag ndox moom su dem ndox rek la yóbbaale kon ku bëgg nekk Baye Fall da ngay fexee nekk ndox mi mooy fexee nekk li Serap Fall dégg ndigal bàyyi tere maam Cheikh Fall wax na lu gën a yéeme nee na bëri na ku sëñ Bamba toog nii nga toog nii ngay xool sëñ Tuubaa fekk yow xooluloo gisoo ko man Cheikh Fall maa ko xool kon ñàkku réer borom lu waaye liggéey yàqu moom kon ñu ngi jégalu bu baax di tuwaat bu baax di santaat mboolem ñi nga xam te ne bi ñu ngi ànd ñooy ñooy ànd ak site bii di Jet TV ci internet bi ci àdduna bépp di leen di leen wax joxaat rendez-vous di leen wax ne waxtaan day continuer ginnaaw koor gi day continuer incha allah ci kattanu yàlla ay yeneen tomb yoo xam ne bii day indi Cheikh Fall bare bare ndax indi dañ ko tas waaye dina indi fan la gën a ay waajuram ba mu jeex sëñ Touba noonu sëñ Saliou Mbacke mboolem maa ngi yoon yëpp dinañ ko indi ci kattanu yàlla barke borom Touba ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan seen ba ci mu yàgg fi loolu te wér di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah barke borom Touba